الله حي صمد وباقي سبحانه ذو كنف وواقي الله حي صمد وباقي سبحانه ذو كنف وواقي ونحن في كنف المني. na ngeen xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla koy dimbalee nit mu def ko waaye yombul. te njar li ci nekk tey ak ëllëg mënu su koo li mënu koo xiyaas te muy tey ëllëg nag ndax lëggéey Sëriñ Tuubaa am na nja am njariñ màgg na mag boo xam ne gii a ah, dégg naa ci mag ku baax mu wax ne sëriñ bi àgg na ci ne bu mënoon a def boppam bi yaar ji mu de jenn ji topp morom ma di ko liggéeyal dana ko def ndax xam liggéeyal ko li muy jariñ قالها في زمن الوباء